dal leen ak jàmm yéen kaay yu bari xëyandoo tey accident gi am daanaka du accident waaye nag cong la goo xamante ne moom la ay defkatu ñaawteef la ñu ne moom la ñu def ci ab woto bisu tata foofe ca yoonu yaraax joor fa li nga xamante mooy cocktail molotov ba ñaar ci ay doom yaadama faatu ca am ñu ca jëlee gaañu gaañu yu métte métti Walf Quotidien googule jéey jur na ji jiixi jaaxa ci askan wi am na ca lees waxul am na lu leeragul ci xelu askan wi na mbir ya demee ca yoonu yoonu yaraax yéen cabinet bokk na ci na mun amee yaraax yoon la goo xamante ne bari na ay camion yu fay jaar bari na circulation bi de fay jax lool mbir mi mun a am te amul lenn loo xamante ne daanaka jël nañ ko ci matuwaay ngir bare circulation ba beneen jafe-jafe gi mooy njiit réew mi Macky Sall jotuta siiwal eh, ci tiwitam eh, métitlu eh, jafe-jafe yi ni mel ba ko ñaareel mooy ba léegi kenn xamagul ñañ ñoo newoon ca biir oto ba ña ca jëlee gaañu gaañu ña ca lorle ña ca jota faatu ba ñu nee dañoo làkk kenn xamagul seen tur fa ñu jógee bokk na ci naka la ñu làkkee ca biir oto ba yéen cabinet loole ba léegi euh, jur na lu ëmp askan wi waaye nag euh, njiital euh, dalal jàmm googule hôpital xam le ne daal am na ñaari néew yoo xamante ne lakk nañu ñu indi leen ci hôpital googule mu ngi ci Walf Quotidien yéen cabinet di tribune mbir yi foo ko natt weesu nga weesu na ko ci wàllu daanaka xel mu dalul xel yi daal lañ ca waxagum daanaka kenn mënalgul jàpp ne loole am yéen cabinet jiixi jaaxa am na ca bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu duppee ay rescapé e, ba léegi kenn xamagul ña jota sowe ca googule woto ña ca jota faatu e, seen néew fan la féete ana fañ la ñu bawee bàyyee ko ana fu ñu cosaanoo yéen ki abidi turbine la ci gën a doy waar mooy jëru ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi dafa xam ne ne bi de jéye de ko méngaleek jëfu terrorisme yéen ki abidi e, enquête xëy duñu ko enquêtal enquête gànce amal ba ba léegi te dara beesagu ca Moussa Sam dafa di njiital hôpital Dalal Jàmm xam ne ci googule woto tata ma jotoon na tàkk jëppét ndax cocktail molotov gañ ca jooroon am na ñaar ci ay doomi aadama yoo xamante ne eh, faatu nañ ca ñaari jigéen yu lakk yoo xamante ne dañ leen indi ca hôpital ba eh, mu ngi ci yéene kaabi eh, nga xamante ne mooy enquête yéene kabi di réew mi quotidien ba tey safara si giifagul ci woto googee nga xamante ne jotoon na fe takk ci yoonu yaraax woto bisu tata sénégalais ba léegi nag ne ci jaaxle di laaj ba léegi lan moo ko sookeek la ko wundu ndax attentat wala boog wàllu terrorisme gañ cey tudd am yéen ne loole nag la ñu bëgg a xam ba tax na procureur euh, sàkku ci askan wi ku gis euh, yooyu lay defkatu ñaaw tef euh, fexe ba weer leen ñu mun leen a teg loxo yéen cabinet critique ne njiitu réew Macky Sall ma ngi cay dalal xelu askan wi xam le ci jamono ji ci jamono ñii di takk yi dañ leen doon sas ngir ñu jàpp defkatu ñaaw tef ñu yor cocktail molotov waaye nag ci bile jamono sas nañu takk der yi kuñ ci gis mun lañ la boom ak balu fetel mu ngi ci yéen cabinet critique yéen cabinet las ne as musiba am ca Thiès ndax ñi ki euh, démb ñetti woto euh, bisu tata lañ fa taal jëppet ay client bo moto euh, woto yooyu la dañoo gaare woon fa ñu ne woon nag ay dawalkatu moto Jakarta ñoo fa romb muur seen kanam ba kenn xàmmewu leen daal di joor ay cocktail molotov ca biir woto ya ba ñu takk jëppet yéen a bi di las xëy duñu ko leeralal l'observateur ne lu doy waar naroon a xew ca Mbuur am na ñoo xamante ne defar lu seen cocktail molotov ba noppi doon xaar ngir mun a na waaye nag seen pexe mu a sotti am na ci juróom-ñeent ci ñoom ñoo xamante jot nañ leen a teg loxo na ci kenn ci ñoom koo xamante ne jàngalekat la ci université eh, bokk na ci bërëb yi la ñu bëggoon a jafal eh, bu centrale électrique bu Malikunda dañ ko bëggoon a taal jëppet ak seen i cocktail molotov eh, ba ci tribunalu Mbour ak marché bu Mbour yéen kaabi di l'observateur moo ñu ko yëggee yéen kaabi di 24 heures xëy ñu dégtal Eliman Habi wax na ci tolluwaay réew mi ne lay koy saafara mooy ñu toog waxtaanee créer Sénégal fexe ba amal dialogue gu wér goo xamante ne ñu ñëpp daan ñu ñëpp daan ci mun a déggoo ngir xool lan moom mun a defar euh, Sénégal yéen kaabi di euh, l'observateur xëy du ñu jàngatal njiitu réew Macky Sall mi tànnagul candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar waaye ñe jota yëgloogum ci candidat yi wolu na leen tey ji càppale ba ngir waxtaan ak ñoom l'info ne tey ji njabootu fay ñoom tànn nañu amadu Mame Diop ngir mu doon seen candidat ci élection présidentielle ñu 2024 euh, wutu fi njiitu réew mi Macky Sall le quotidien moo Fatou Faye ay jegeñaale Marème Faye Sall ay goro njiitu mi Macky Sall tànn nañu amadu Mame Diop eh, ngir mu doon seen candidat yéen kabi eh, nga xamante ne eh, mooy Walf Fadjri quotidien dikkaat ak ñun ci coalition Yewwi Askan Wi ëllëgam ci jamono ji ci jamono joo xamante ne njiital Pastef Ousmane Sonko ma nga kaso partem di Pastef ñu tas ko Khalifa Sall ñu beddi ko ci bile coalition Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi ñoom booloo rek doon benn moo leen war lu ko mooy mun nañ fee jaaree sànku bi di l'évidence xëy duñu jegtal njiital Pastef ma nga kaso fa lay amale xiifalu ñaxtu euh, Papa Alé Niang ma nga kaso di amal xiifalu ñaxtu ñoom ñaar seen wér yaram demeetul noonu mu ngi gën di am jafe-jafe yéen ki abidi sursaane euh, Ousmane Sonko ma nga ca kaso bi xotaan waaye nag mel na ni ku nekk ci biir ñaari kaso ndax ci biir kaso le dañ fa tabaxat beneen kaso goo xamante ne euh, fan yële ñu weesu lañ ko tabax ONU moo ko santaane woon kaso gu ñuy denc ay criminel def ñaawteef Rwanda ah, foofe nag la ñu denc Ousmane Sonko ci eh, jamono ji yéen kaabi di le peuple quotidien eh, dañu degtal ne ay jege ñaale Ousmane Sonko Jamil Sané maire bu Parcelles Assainies teg nañ ko loxo ah, a Dieye eh, di maire bu Patte ñoom ñaar ña nga garde à vue enquête gaa ngay wéy jëmee ci ñoom daañ leen jébal procureur yenn kaabi di yor yor gi xëy duñu dégtal fi nguur gi sukkandikoo ba tas Pastef dañ cee jalgati yoon mu ngi ci yéen kaabi di yor yor ci xëtam bu njëkk yenn kaabi stade xëy duñu dégtal dëggal suñu gaynde yi la daanaka équipe nationale bu doonoon garab ñu am na ci bànqaas goo xamante ne eh, dem na ci Arabie Saoudite eh, ku demee ni suñu góol gi Edouard Mendy eh, kuli Kalidou Koulibaly défense beek attaquant bi di Sadio Mané ñoom ñëpp ña nga ca Arabie Saoudite Sénégal ma ngay waajal match jonganteem ci wàllu demi-finale digganteem ak Mali mu ñeel Afrobasket bi gannaaw bi Sénégal gagné démb Cameroun yéen a kii di suñu lamb xëy du ñu jàngatal MMA mi tàmbale am doole. ci Sénégal tàmbale naa sax wàññi doole arène bi MMA eh, googee nag buñ ko tuddee ci Sénégal ñaar ko waral eh, Rocky Balboa ak Bombardier eh, béy nañ ci waru wu yaatu ak rëg-rëg yéen cabinet ci weeru octobre gi ñu jëm Tapha fas yéene bëree ci MMA ñu ngi ci xaar nag bile xeetu tàggat yaram fan la mun a yóbbu arène bu Sénégal mu ngi ci suñu lamb yem ak fu ñu jeexale xeetu yéen kaay tënk la woon ci baatu askan abonné leen ci suñu seen